benn xale la woon xale bi nag ñaari at dong la am mënagul wax benn grand bu ñàkk a fulla grand bi daal lu dul ñëw ci kër gi pour bàmbaane xale bi heure bu añ bi tege mu profité wu ci añaale heure bu ñëwee rek jël xale bi gili gili gili gili gili xale bi di ree ndekete gili gili gi joxee booy bi bong rek grand bi naan ko gili xale bi ree ba gëmu bi lekk beñe bi xale bi def ni gili ah, ah, ah. gili xale bi def ni gili gili xale bi mer boo ñu def ko deuxième jour waa ji ñëw papa xale bi ñëw indi ay madeleine yu neex laa la wax rek grand bi xaf xale bi coxataan ko gili gili ba kii xanaa bi lekk mat leen si ngoon gi maamam indi nag ay fraise fraise lu yàgg la mooy mburu yu am suukar yooyu grand bi gont rek jugee teere xiif rek këfaat xale bi gili gili gili gili gili xale bi reetaan ba kii mu nëbb ko xale bi na ko amul gili gili dëjëw ndeyam kat fi ndey bonbon yi boobon yi ñoo ko bokk dëgg fi ndey boobon yi laa la wax amul gili gili ah indi boobon yi waaye lii lan la damay wax réew ma de indi bonbon garam na ko ah booy da ngay wax da ngay jommalaat waaye ñappal ndeyam say bonbon ngi man munoo maa jommal day demal ma dama lay fooye rek ku konga